journée internationale des personnes handicapées loolu dëgg la adduna bi yëpp a koy màggal manim Sénégal tamit di ko màggal à l'instar des autres pays ñun fii ci département de Saint-Louis chaque année dañu am tradition organiser ko ak suñu partenaires yi nga xam ni ñoo ñu jàppale suñu fii ñu jàppale woon yéen tey du ngeen ñëw maanaam ci manifestation bi tey nag am na benn panel boo xam ne mu ngi déroulé fii euh, am na thème national mais ñun dañuy seet dañuy adapté Euh, suñu journée ci difficulté yi nga xam ne am nañu ko ci département bi ak région de Saint-Louis mooy ñaar maanaam jàngum école yi xale yi ak maanaam wérgu yaram bi. dañuy dañuy rafetlu bis bi parce que lu tax ñu koy rafetlu mooy chaque année ku ne xam na ni le 3 décembre si at jeexalut at bi la ñuy célébrer li nga xam ne mooy ñuy jagleel way laago yi te li am solo si diwaanu Ndar ak li ko wër mooy at bu nekk dañ koy célébrer si bis boobu.